dal leen ak jàmm kii di Thierno Alassane Sall ministre de l' énergie ba woon samp na ndëndëm maanaam dal dina taxawal ab kuréel gu bees gamu duppee la république des valeur Walf Quotidien ne combat gu méttee métti nar a dox ci diggante ñaari saaleen yi di njiitu réew mi Macky Sall ak Thierno Alassane Sall yéen a cabinet Thierno Alassane Sall kontaanul benn yoon ci ni réew mi di doxee Sénégal féppay métti koom-koom gi demeewu ni ay entreprise yu bëree ngi tëj jur njaboot gu tasaaroo Thierno Alassane Sall ay wax ne xool leen di secteur informel dara doxatul ñàkkum xëy bi gën di tar ci ndaw ñi quotidien di ñu xamal ne moom Thierno Alassane Sall jot na dajale kujje politique bi Idrissa Seck ma nga fa woon Abdoul Mbaye ma nga fa woon Ousmane Sonko ma nga fa woon Maître la Hadji Diouf ma nga fa woon ba ci Cheikh Bamba Dièye yéen cabinet li jaaxal ñëpp mooy amutoon benn responsable libéraux ba fa ne woon newoon yéen cabinet le quotidien feelu ko des ca Thiès ak jalu xeer bi Thierno Alassane Sall joor njiitu réew mi ci Sall ay kàddoom ci biir yéen kaay bi Thierno Alassane Sall xam le ne jot na ñi muccu deretu réew mi faw ñu ndëppal leen ngir ñu jóge fi las la mu gis ci réew mi wax na ko Alassane Sall gis ne réewum Sénégal metti na lool tar na lool ne suuf desatu fi lu ko dalee ci corniche u Ndakaaru ba ca filawee ne ca Géejawaay nguur gi seddoo na suuf si yéen a ñu fàttali ne ci googule ndaje Idrissa Seck ak Abdoul Mbaye ña nga fa woon jot nañoo artu jot nañoo bàyyiloo xel Thierno Alassane Sall ne bu yaboo mu fagaru ne saay su ne nguur gi mun naa dal ci kawam ci anam yu déppoowul ak yoon ngir bundu xataal koog faagaagal ko zoom info ne xeex bi tàmbale na xaat gannaaw bu mu wonee ginnaaw nguurug Macky Sall moom Thierno Alassane Sall daal di taxawal mouvement am gouverneur ci la palais de la république daal di addu ci saasi ministre d'état Mahmoud Saleh ay kàddoom ci Zoom info daal di sampaab laaj ne ana yan valeur moom la Thierno Alassane Sall di wax xanaa dafa fàtte ne ay àndandoom tey ñoo doon xeex démb njiitu réew mi a kaabi di 24 heures xibaar ne du jëm ci muri mbalaanu kirlaayu Khalifa Sall ci assemblée nationale yéen a kaabi méngale li ak ab tsunami maanaam ngelaw gu ànd ak fitna ci assemblée national ne bu leen nangu benn yoon ku leen noot bu dee Barthélemy Dias ma ngay artu ñii di magistrat yi ci dossier Khalifa Sall réew mi quotidien ne Khalifa Sall moomee ñori lii di malaanu kirlaayam doon lu tàmbalee gësam géew politique bi Abdoulaye Wilane ne ndok ànd na ci ñu xañ Khalifa malaanu kirlaayam ci assemblée nationale ngir mun ko atte yéena kaa bi gis ne Abdoulaye Wilane ma ngay wone mbégteem ma ngay tàccu Walf Quotidien ay jegeñaale Khalifa Sall àndul ci doxalin gi ni mel ci assemblée nationale ñaxtu nañ ci samedi bi ñu weesu ci Ndakaaru Bamba Fall addu ci bi ma Macky Sall génnewul Khalifa Sall ci kaso bi du ñu jóg ci ñaxtu Maître El Hadji gis ne kii di njiitu réew mi Macky Sall mooy kii faat démocratie ci réewum Sénégal professeur Malick Ndiaye ne yox-yox yi jeex na ne waxtu wi jot na ngir ñu dem ca kaso Rebeuss génne Khalifa Sall ci kaso bi elentine ay kàddoom ci Walf Quotidien ne leer na nañ njiitu mi Macky Sall léegi ab dictateur la elentine ne nguruk jaay doole ci la Sénégal di dox Dakar Times xëy dox wutali port autonome bu Ndakaaru falateer tey di ñu sullil mbóot geneen ñeel yorinu docteur Cheikh Kanté ma fa newoon yéen ka bi ñu xamal ne ab tong-tong bu toll ci fukki milliards ak juróom-ñaar yi docteur Cheikh Kanté jële woon ci Ecobank ana fu mu féete yéenekaay bi di Le Témoin feelu ko des ca port autonome bu Ndakaaru di leeral contrat gi dox ci diggante port autonome bu Ndakaaru ak groupe français bii di G3S ay cadre ca port jot nañ cee addu gis ne ci googule g s fa la ñu bari di jaar di gàkkal docteur Cheikh Kanté ci yorinam ca port autonome bu Ndakaaru Direct Info ne ana naka la ñu mun a gàkkalee liggéey bu jaar yoon bi docteur Cheikh Kanté def ca port Direct Info li jara wax mooy li jara mooy ab lista ngi nii toll ci ñetti téeméeri doomi aadama ya ca nekk moom la fondation servir le Sénégal bi première dame Marième Faye Sall jiite liste googee la jéebal directeur général bu bees gànne ca port autonome bu ndakaaru ngir mu mun leen a jël toll nañ ci ñetti téeméeri doomi aadama yéen a kaabi di libération ne yoon mujjee naa delloo benn immeuble ak ñaari kër njabootu Abdoulaye Wade gannaaw bu ñu leen tegee loxo ci traque des biens mal acquis libération ne njiitu réew mi Macky Sall jubantiwaat na mbir ya fab na delloo ko njiitu réew ba woon Abdoulaye Wade l'observateur ne diggante Abdoulaye Wade ak ngir ñu jàmmoo ñoom ñaar doon lu yitteel xalif général des mourides jot na ko sëriñ Bass Abdou Khadir Mbàkke ne seede na ko fi xalif général des mourides